nga xam ni ñu ngi soqeekoo ci coono gi nga xam ni yonentu yàlla ismail alayhi salaatu wassalaam dajoon na ko ba yàlla may ko ndox moom ak mu ne bi zamzama ci zamzam fawqal bi'ri ci kaw teen ba min batni makkatin ci xurab makka ba unaasidu lay waye lay jooroo madhal haashimi yi ngi tagg koj ak yetu mu yonantu bi sallallahu alayhi wa bokk ci giir ak haashim mutaran ni man di neexal baat maanaam di di di neexal samay way bàyyi na bi multazamin ci multazam bërëb la ak catu màkka yi xam nañ fa wal muslimuuna boob jamono jullit ña dawiyuhum ñi ngi ci seen ak yëngu bi zikrin ñi di sikar wa takbirin ñi di kàbbar yàlla di kàbbaral yàlla maanaam di ko màggal tara nga gis alkulla mboole seen axrama ñi ngi xarmal xarmal mooy li aji aj di def sangu cangaayal farata summeeku ci lépp loo xam ne dañ koo ñaw bu dee góor la mu woddu sër taraxlaayoo sër loolu mooy xarmal yéene aj bi nga fas yéene def bàyyi ne faman lii ana fan laay bi ilmaamin ku may cëppeel maanaam ku may wàcce bi taybata ci tayba muy madinatul munawara binnaqaa foofu nga xam ne mooy bërëb bu sell ba maqarri rasulin saxuwaayu ab yonant yonant boo xam ne jaa a dikk na mujj waaye muqaddaman moo fi ñëpp waaw yonent boo xam ne moo moo moo fi moo raw ñëpp waaye moo mujj ñëw bàyyi wan way na ko feneen ci jaaltuka ya xayra wa awalu tilka rusulu jaa axira mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy njëlbeen ak waaye moo mujj ñëw bàyyi tamit wax na lu mel noonu ci xaqam moom mu ne wa axarani dahri wa rabbi taqaddama sama jamono moo ma yéexee waaye sama boroom man la def ci kanam loolu la la sa xalaat ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne maqarri rasulin saxuwaayu ab yonantu yonantu boo xam ne jaa dikk na axiran di ku ñëw waaye muqaddaman waaye moo jiitu ñëpp maraadi aminillaahi namm nammab ki nga xam ne mooy Euh, ci yàlla woolu markazi sirrihi mooy santraaru markazi ahmadin mooy santraalub ahmad santraarul ahmad maanaam yàlla kim wóolu ba di ko dénk bagaasam yi mooy ahmad bihaa ci moom ahmad intasara la dimbalee al islaamu lislaam ala yëkkati ko wa af xamaa te màggal ko bihaa ci darajay ahmad boobu zallala saxee jibrilul amin jibril mi nga xam ne moom la yàlla wóolu mu waajiban di aji sax wa mustaxdaman di aji jëfandikoo maanaam ñu di ko jëfandikoo ci sha'ni ci mbiru man jaa ak yi nga xam ne dafa ñëw maxtaman di aji tëj ràng ak yonantu alayka salaatullahi yàlla na jullit yàlla wàcc ci yow summa salaamuhu topp sëlmalam minal abdi julli goo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci jaam bi ibrahima jaam bi nga xam ne mooy ibrahima ñas shawqan waaye julli gi dafa ànd ak cofeel wa maghraman wa maghnaman maghraman ànd ak itamit eh, mbëggeel alayka yàlla na wàcc ci yow salaatullahi julleeg yàlla suma salaamuhu topp sëlmalam qawiyu rajaa in boob dinay am yaakaar gu dëgër bal dikkal na la bal li sax mooy ataa dikkal na la mutasalliman di la jébbal léppam alayka salaatullahi summa salaamuhu fa farrit yàlla na nga huññi kuruubal muslimina njàqare jullit ñi wa am ni maa ta nga matale alayka salaatullahi summa salaamuhu yal na yàlla julli te sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam minka tukkee ci yow wala wa minka ci yow iyaa bi dellu yow laay dellu mustafal kawni yow mi nga xam ne yow la yàlla tànn ci kawnu bi mukraman nga doon ki nga xam ne moom la yàlla teral alayka salaatullahi summa salaamuhu fa yurzaqu bu wërsëgalee waf bi sama mbooloo min ci yow aw ban wa mag na man maanaam suñu dellu wa na man ak suñu màng maanaam dellu buñ mbooloo mi àndoon ak moom dem Màkka bu ñuy dellu di ñibbi Sénégal ñu yóbbaale koom-koom bu rëy rëy alayka salaatullahi yal yàlla julli ci yow yonent bi sallallahu alayhi maa qaala mughramun fekk aji sopp gi ki ñu jaamal ci mbëggeel mi ngi wax apayfun mooyee ndax keneer saraamu royaatal am anna rakbiya wala sama gawar yamama moo jublu dëkkuwaay yonent bi sallallahu alayhi wa xarful baa bàyyi ne balaa أهانكي إن هذه في أرض طه موي طه محمد محمد فذاك فله عقيق موي عقيق عقيق بربل في مكة ذاك فله سلع موي سلع بربل وغرقدو فله موي غرقدو وذا في أحد موي أحد هذا لي xubaa mooy xubaawu wa bayna za diggante nag xubaa am na lu fa wa za wa za diggante foofu wa zaaka ak fële maraadul munxamina mooy tëdduwaayu munxamina maanaam tëdduwaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhammadun muhammad wa dalika foofule batxaa un xur la makka mu ne wa zaaka foofule maradul munhamina mooy tëdduwaayu munhamina muhammadun muhammad wa dalika foofule batxaaun batxaawu xur la ca makka wa haadaaka mi ngi nii may seen xandaqun xandaq bii foofu ci xandaq farra la dawee saxrun mooy abu sufyaan moom moo tudd kaana nekkoon na yu haddidu di tëkkuwaate xablu ci lu jiitu xare boobu doon na tëkku jullit ñi lu jiitu xareb xandak waaye bañ demee xandak dafa daw bii ca xandak moomu hazama noote aljaysa arme ba al aram rama bi di aji bëri mbooloo baadama tayaqana ginnaaw ba mu wóoloo ni jahlan jahran du jahlan jahran du hmm? ah, jahlan waaw dafa juum jahran ci lu bir ne anta yoolaani dina yëkkatiku wayun jadu te dina maanaam dina gañe yi nga xam ne mooy xare bi wala qad wa rajaa dellu na almansuuru ki ñu dimbali mu yonent bi sallallahu alayhi wa delloo delloo jugee xandax dellu yóbbaale ndam wal jibtu te boobu jamono xërëm ya xërëm bi tuddoon jibtu xaasiun mu ngi nekk aji suufe bi ma tami kufrin ci ab congrès boo xam ne congrès xéefar la congrès mooy daje boo xam ne yéefar ñoo ko daje woon di pexeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fil jazirati ca jaziratul arab yoqadu ñuy fas maanaam ñuy nasaka not seeni pexe waqat jaa a ca la dikkee maanaam matam boobu boo ko déggee mooy xareb ahzab waqat jaa a ca la dikkee nasrullahi ndimbaleg yàlla wal fatxu ak fatxu gi wanta mu jeex tak du jël kufri lëndëmaayu kéefër wa tuyaani ak mbewte is jamono ji nga xam ne jaa dikk na ahmadu ahmad wa ashraqa jolli na nuurul ilmi leer ak xam-xam war ak njub wa tuqaa ragal yàlla ba loolu jollee nag bàyyi ne ala taniqu ndax du ngeen jàpp diina rasuli diina yonent bi sallallahu fa tasaadu ngeen texe jàpp leen ci diine ji ngir ngeen texe léegi nag mu ñuy wax ñi jàpp ci diine ji ñëpp te texe mu ne kama saidan ni ci la texee almaaduuna ñi jiitu woon wadkur tuddal imaamahum seen njiit abu bakrin il atqa mooy seydna abu bakrin as-siddiq radiallahu anhu bokk na ci liñ ko doon dàkkantelee al atqa ndax alquran dafa ne wa say al atqa firikat yi nee nañ abubakar mooy al atqaa mooy ci gën a ragal yàlla al mualla ki nga xam ne mooy ci yàlla yëkkati al musaddadu ki nga xam ne mooy ku jub ci wakal ayatil kubra niki noonu ci mel ni kaawteef ak yàlla gu mag gi al muzaffaru ki nga xam ne yàlla daf ko defal ak xéewal man ki nga xam ne xadaa mujj na siraajan di làmp wa faaruqan di teqali diggante dëgg ak caaxaan wa zaaka kooku de al mu ayyadu mooy ki nga xam ne moom la yàlla dimbali mu ne wakal ayatil kubra ak ki nga xam ne mooy kaawteef gu mag bi al muzaffaru ki nga xam ne yàlla ko defal xéewal maanaam mu jot càkkuteefam man ki nga xam ne xadaa mujj na siraajan di làmp wa faaruqan di tekkali diggante dëgg ak caaxaan wa zaaka kooku kookule al mu ayyadu mooy ci ñu dimbali ci ñu dëgëral kooku nag mooy Seydina Omar ibnu Xattaab al Faaruq ci yow yàlla di tekkalee diggante dëgg ak neen moo ñu koy wax Omarul Faaruq wa Usmaanu ak Seydina Usmaan Zunnuurayni ñi nga xam ne mooy borom ñaari leer ñaari leer yi nag mooy ruqiyatu ak ummu kalsum kullun kum ci mënti doon ci ñoom xad yatala maanaam aboubacar omar ousmane xad yatala yow ku kawe nga aji kawe nga yéeg nga majdi ci njomboxtalu teranga maanaam da ngay yéeg ci catal teranga ci féete kaw ñëpp ci ci nga fi ni ci àdduna ak wal kullu ñoom ñëpp nag sindidu ay sang lañ sindidu mooy sang wa sayyiduhum seen sang nag ñoom ñëpp laytul kataa'ibi mooy gayndeg mbooloo mi sin wu texu yonent bi tex mooy koo xam ne sa doomu baay la aliyun muy seydna aliyin abu sibtayni baayu ñaari sët ya say fii ki nga xam ne mooy sama jaasi man baay al muhannadu jaasi ji ma tàggat sët nag maanaam boo déggee ñuy wax Seydina Ali laytul kataay bi gaynde mbooloo ma Seydina Ali radiyallahu anhu ba mu juddoo ba nga xamee ni mi ngi ci kaw lal lalu ndeyam di di di di liir yaayam dafa génn néeg bi ba ko fa ab gay ab jaan ñëw fekk ko ci lal bi mu ngi doon liir bu tooy xepp mu xeex ak jaan bi ba rey yaayam ñëw tuddee ko dara mooy gaynde gi sëriñ nag loolu lañ jël moomale ko seen bopp ay dara mooy ci gaynde ci xarek tabbu ba nga xamee ni ah, ci xarek xaybar ba nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi jox na ko raayab jullit ñi ne ko demal am na benn waay bu futu nekk marhab marhabu ku mënoon a xeex la du dóor ñaar jaasi ñaari yoon benn yoon lay dóor nga faatu te balaa mu lay rey day tagg boppam day wax ni hada sayfu marhab man yazuqu yaqab lii mooy jaaseb marhabu ku ko ku ko ku ko ku ko ñam dee wala mu ne qad alimat xaybaru anni marhabu zaki silaahu batalun mujarrabu idal xurubu aqbala tarhabu mu ne xaybar yëpp xam nañ ni marhab maay borom jaasi jiñ namm bam ñaw bu xare bi ñëppay daw ku ma ku ma nga dee bañ demee foofu nag mu tagg boppam tagg boppam Seydina Ali ne ko ana alladi sammat ni ummi haydara kalaysi gaabatin karihil mandara akiluhum bisayfi bisayfi kayda sandara mu ne man maay ci sama yaay tuddee gaynde gi ana alladi sammat ummi xaydara kalaysi xaabatin karihil manzara maanaam maa ngi mel ni gaynde gu taxaw ci digg manding gi ku yëngu ma defal la bagal ku yëngu ma faat la ñoom kenn ku ci nekk xas maanaam ku nekk tagg sa bopp ñu jàmmaarloo marab ba mu yëkkatee jaasi bi balaa muy wàcce loxoom fekk Seydina Alin rey na ko bu yàgg moo tax bàyyi ne wa sayyiduhum seen sang bi laysul kataa bi gayndeeg mbooloo mi sin wu ki nga xam ne texam la moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam aliyun mooy sayyidina aliyin abu sibtayni bàyyi ñaari sët yi bu dee sët yi jugee ci doom bu jigéen la ñuy tuddee sibtu sët yi jugee ci doom yu góor xafiit lañ koy tuddee ndax sët yonantu bi sallallahu alayhi ñëpp doomam bu jigéen moo leen jur moo tax bàyyi ne sibtayni bàyyi ñaari sët yi say fii nga xam ne mooy sama jaasi almuhannadu bi ñu tàggat wa hamzatun ak sayidna hamza hamzatu xam nañ ko ci nekk gaynde moom la yonentu tudde asadullah gaynde yàlla gi wal abbaasu ak abbaas di bàyyi ci yonentu bi sallallahu alayhi wa azkuru du ma fàttee tudd jaafaran jaafaru jaafar moom mook sayidna ali ibn abi talib ñoo bokk ndey ak baay wa shaabaha ndiroole ne abhan naasi gën a taaru ci nit ñi maanaam jaafar moo ndiroog ki gën a taaru ci nit ñi faxrun muy aji puukare musannadun bu ñu dëgëral maanaam jaafar mooy ki gën a ndiroog nit ñi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yonent bi waxee dafa fecc moo tax ngay dégg ñenn ci sufiyanke yi ne jaafar ba ko yonent waxee da ngaa ndiroog man dafa fecc waaye loolu mbégte moo ko taxoon a def ilayka jëm ci yow rasulallah yow ndawal yàlla li xibbun ak cofeel wa xaadimun ak surga boo xam ne yaruumu mi ngi ridal baar yi njërmande yàlla wa fil xuldi yaxludu wala nga ne wa yaxludu mu sax fil xuldi ci aljanna waaw jannatul xuldi alayka yàlla na wàcc jàmm wa huwa te jàmm googu min nii ci man lay tukkee wa inna nii te boobu jamono man baay alal jaw yi maa ngi ci jaww ji fii tahyaa tihaama ci àllub tihaama tihaama mi ngi ci diggante riyaad ak jidda ci màkka diggante riyaad ak jidda diggante seen war na mat eh, eh, eh, mille kilomètres war na ko jege Euh, mille mètres boobu euh, non mille kilomètres diggante Tihaama ak Jadda euh, Tihaama boobu diggante Riyad ak Jadda mu ne maa ngi ci kaw maa ngi ci avion bi ba muy woy lii ci avion bi la nekk ci jawwu Tihaama un si du may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mu wala doy na mu maa ngi dem ak dikk maa ngi caw yi fil ajwaa yi ci jaww ji tawran yenn saa yi maanaam yenn saa yi maa ngi ci sama dëkk wa taaratan yeneen saa yi maa ngi fële tujaabul mawaami may dagg manding yi fadd fadan dëkk suma fad fadan topp dëkk maanaam jaar dëkk bi jugee fa dem dëkk bi loolu yëpp nag maa ngi koy defee